nettali bu jëkk bi yàlla sàkk na lépp li feeñ ak lépp li nëbu nettali yi ñu ngi leen jukkee ci kàddu yàlla gi di tawret saboor ak injil ñu ngi nuy wax ci mbirum ni nu yàlla bëggee ak ni mu bëggee am kóllëre ak ku nekk ci nun kàddu yàlla gi nee na mbind mu sel mépp ci gémmiñu yàlla la jóge te am na njariñ ngir jàngal nit ñi yedd leen jubbanti leen te yee leen ci njub noonu waayu yàlla ji dina mat ba jekk ci bépp jëf ju rafet déglu leen bu baax nettali yi te ngeen ñaan yàlla mu won leen lan la bëgg ngeen xam ko te def ko gannaaw nettali bu nekk am na ay laaj ngir dimbali leen ngeen xam mbir mi tey jëf li ngeen déglu saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem a tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen a wéy ci seen déglu